Euh, sénégalais maa leen nuyu di leen sant euh, di ñaanal ñëpp jàmm bon maintenant damay ñëw tey pour def une mise en demeure nette de ce qui se passe présentement au Sénégal surtout avec les gens de Pastef et leurs leaders euh, voilà quel koo xam ne dafay def politique ñu nekk politique état bi autorisé leen ñu def politique malgré beaucoup de considérations géopolitiques yoo xam ne xooluñu ko léegi heure bi ñu toll nii mu am problème boo xam ne c'est un problème droit commun boo xam ne sénégalais yëpp xam nañ ne dëkk la ke dem na ci ndaw si te ndaw si tumal nako donc layo bi lu war la lu loi prévoir la parce que Donald Trump gis ngeen ko Dominique Troscan euh amna fi ay kay yu Sénégal ay Jombas Diaw amna fi kaawu Sitor Ndour ñëpp dañ leena enquête sétal leen mom mu dem ci jigen goudi bay ñaari soxnam di di beus lu fo xamne duñu ay docteur ba am fa problème bi ni di ko woo ci yone diko ko laaj mu refuser depuis le début défier justice défier état maintenant li ma bëgg yeen Sénégalais yi nga xamné ñun ñoo fété ci beneen côté bi nañ observer li xew Casamance parce que du yone parce que Casamance déjà dafa nekkoon ci réew mu nekk ay rébellion donc yow boy def politique ba am problème ak réew euh, réew mi ngay défé politique waro dem Casamance di fa basé wu ba di ci dugal ay MFDC di ci dugal ay ethnie

bu dee sénégalais nga war nañu japp parce que déjà MFDC bu Salif Sadio ñi ngi attaquer armée sénégalaise donc ken amul droit di jox ay information ci suñu aéronef yi déplacer suñu auto yi déplacer wu ak suñu personnel bi légui nak da nga wax lo xamni ne tey damaa bëgg sénégalais yi ñoom it comme nag soxor ak kañaan da leen jital légui ba xamni fi ñu teg seen tànk li ci kanam rawuli ko danañ ko gis Khalim Bousso ak nu Mbàkke ak Bousso bi la bokk